mbokku téléspectateur global télévision jërë ngeen jëf ci teewlu bi bismillah ci xibaaru marax bi léegi léegi ñu wax leen li ci gën a fës li ci gën a fës nag bokk na ca mbënd ba ca am ca Touba Mbacke xalif général des mourid daal di euh, jagle lu tolloog ñaar téeméer ci ay millions daal di koy euh, jox ñi nga xamante ne nag ñoo am ay métit ca mbënd ma euh, sëñ Muntaxa Bassirou di xalif général des mourides daal di jëkkati yile koppar jox leen ko sëriñ Bass Abdou Khadir mi di porte parole am daal di koy xamle di ngeen ngeen teewlu ay kàddoom ci biir jotaayu xibaar yi ba tey ci biir jotaayu xibaar yi la ca gën a fës bokk na ca ab bis bu tàkk tey jóge woon ca Ndakaaru daal di dem foofu ca Goudiry euh, ba mu tollee nag dix-huit kilomètres laataa mu yegg Goudiry ca la tàkk nag démb euh, ci boori timis waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ca bis ba yëpp di dinañ leen di évacuer Euh, ci ndimbalu nag sapeur pompier daañ ci dikkaat ak ay leeralu yat ma Dieye ba nga xamante ne moom moo nekk ca 61e compagnie sapeur pompier bu Tambacounda ci micro Amadou Diallo ba tey ñu desandi ci bopp xibaar la ca gën a fës. suñu fàttalikoo nag fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre mu yem ak bis bi bato bi suux di bato la Joola gaal googu nag suux amoon ay souvenirs yu bëri yoo xamante ne nag gaal gi denc na ko looloo waral ci ab taskar jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñi nga xamante ne ñoo fa amoon seenub mbokk eh, daan nañuy fàttali la nga xamante ne moo ca gënoon a métti ci suuxuk gaal googu waaye nag lu ñu bëgg rek mooy yoon daal leen di jox eh, dëgg di teew lu ci biir euh, jotaayu xibaar yi xibaaru tàggat yaram nag lañ nar a buuree yile xibaar ndax euh, Sénégal daal dina ñàkk ñaari place ci classement FIFA euh, mu nekk nag vingt-et-unième place nekk ci ginnaaw marok nekk ñaaral rek ba tey ci ginnaaw Maroc loolu nag di ab xibaar boo xamante ne nag daañu leen ko dégtal ci biir jotaayu ci biir yaatal gi mbokk yi lii lépp ap tënk la bu ngeen taxee loo ñu faram ko. jërë ngeen jëf ci teewlu bi ni ma leen ko waxee woon ci bi ñuy door ginnaaw nag uh, taw yu metti yi nga xamante ne moom moo wàcc ca Touba Mbacké xalif général des Mourides di sa Serigne Mountakha Mbacké daal nay joxe lu tollook ñaar téeméer ci ay millions ngir daal di dimbali ñi nga xamante ne dañoo yàqule ci mbënd mile al Mountakha daal di uh, xamle ne mi ngi leen di mi ngi bokk ak ñoom uh, naqar bile looloo waral nag Serigne basab Abdou Khadre porte-parole bi daal di joxe bile xibaar ci ab déclaration boo xamante ne euh, démb la ko amaloon ñu teewlay kàddoom ci micro Aïssatou Ba Adama sëriñ bi nee na képp ku fi dëkk rek. te ndox mi laar laal sa kër wala mu laal sa wala lu mu mën a doon rek. sëriñ bi wax na ne mi ngi lay masawu ci loolu ko ànd ak yow. loolaa waral nag sëriñ bi ci yéen maa jaatu wax na liggéey bii xam na ne nit ñi sonn nañu ndax ndox mi ñi dugg na ci seen biir kër ñi dugg na seen mbedd bi mootuñu jàll mu ne kon yëkkati na ñaat téeméeri million joxe ko ngir tàmbalee ko nag da ko tàmbalee rek wax ndax juróomi téeméeri million sax la waroon génne loolu la waxoon dama juróomi téeméeri million wala milliard laa war a génne sax joxe ko tàmbalee ko waaye ginnaaw bi ñu ko waxee ne ko na tàmbali rek fu ñu toll mu toll fa ak ñoom mu kon na joxe ñaar téeméeri million bi mu ko ngir bëgg ñu ñu tàmbalee ko ndimbal teg ko nag ci ñetti daayira yu mag yi nga xam ne ñëpp xam nañ seen taxawaay ci dëkk bi ñu boole ñetti kuréel yëpp nag mu nekk leen ñoom ñu ñu ñu waxtaan seen bi ba tënk ko sëñ moom joxe na xaalis bu noppi waaye ginnaaw buloolu loolu jàlle it nag ñuy soññ bokk taalibe yi murid yépp ak képp ku bëgg lu baax taman cee jëf dara lu néew néew bu mu ci xeeb dara bu ci yëm dara ndax euh, lottu nit ñi moo toll foofu te nit ñi kat hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min azabin alimin tu'minuuna billahi wa rasulihi wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi amwaalikum wa anfusikum kon jihaad ci sa jëmm ak sa àll dara ëpp doole kon sëriñ bi nee na ngi jege taalib bi yëpp lépp loo leen waaye mën a dimbalee na ko def coalition gëm sa boppale lay jàmbaar ñoom itamaloon ab euh, jotaay ak euh, taskatu xibaar yi euh, démb Bougane Gueye daal di daal di ci profité nag daal di ŋàññ Ousmane Sonko ak gouvernement ak ki nga xamante ne nag mooy euh, jëwriñ ji ñu dénk wàllum ndox meek euh, li nga xamante ne moom mooy assainissement di Cheikh Tidiane Dièye moom nag daal dina leen joxoñ baraamu tuuma jàpp ne euh, kii di njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa salfaañe yoon ngir rek daal di fegg ki nga xamante ne nag moom mooy Ousmane Sonko. Euh, li muy woo sénégalais yi rek ñu voteel opposition bi ci législative yi di ñëw ngir rek cohabitation mën a am ca assemblée nationale ki ko dékkoon micro mooy Mansour Diassé jiitu gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany amal na conférence de presse àllarba ji dellu si si mbënd mi nga xam ne am na fale sa Kaolack ak sa Touba muy xamle ne lu jëm ci wàllum taw mënuñ koo teg ci ndoddu parti politique waaye lu jëm ci wàllum gestion wala fagandeku lu jëm ci mbënd ci ndoddu nguur gi la tegu ak Kolda

nga ñëw waxtu jëf jot nga jëfe la soq ba waxoon xam nga buy xool ragal dëgg ci Sénégal le premier ragal du Sénégal c'est Ousmane Sonko. mu dellu si di xamle ne na dina porter plainte foofule ca pôle judiciaire yu bees bi ñu taxawal fan yi ñu génn ngir ñu indi ay leeral ci coowal Lonase ak lii di Azer. moo tax ñun ñu ne pôle financier boobu dana lu fa déposer ñetti plainte ñun dana leen jox liggéey. ca njeexteel ba Bougane Gueye Dany di ñaax sénégalais ñu votel opposition bi ngir ñu mën a am lii di majorité parlementaire ngir mun a imposer lii di cohabitation fale ci assemblée nationale. ni ma leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi ab bus bu ñu duppee nag air Goudiry euh, jugee Dakar daal nay tàkk la moo yëg euh, Goudiry. Euh, lu tollook fukki euh, kilomètre ak juróom-ñett la tolloo loon fala tàkkee démb nag boori timis ña nekkoon ca bis ba yëpp ci ndimbalul euh, sapeur pompier ñu daal di leen di évacuer ak ki nga xamante ne nag moom mooy brigade gendarmerie ba fa nekk capitaine ma Dieye bi nekk ci soixante-et-unième compagnie bu sapeur pompier bu Tambacounda indi na ci li ay leeral ci micro Amadou Diallo. sapeur pompier yi bàyyeekoo fii si Tambacounda la ñu woo tey ci àllarba yemoo fukki fan ak juróom-ñett ci weeru vingt 2024 bi juróom-ñaari waxtu si ngoon toftale fukki simili pour benn bus bu nga xamante ne da doon tàkk ci route nationale numéro 1 bi fële sa wetu Goudiry toll si téeméer ak fukk ak juróom benn ci kilomètre mel na ni bus bi nag horaire Goudiri la woon ne mi ngi jugee woon Dakar mel ni ku jëm Goudiri ponk bu njëkk bi mooy ab soldaar bu nekkoon ci bus bi moom ak yeneen naataangoom jotoon nañu grawale ñëpp ñu nekkoon ci bus bi ba kenn jëlewu ci lor ñaareelu ponk bi mooy gendarmerie nationale bi ñu leen woowee ñëw nañu defal ñu li ñuy wax périmètre de sécurité maanaam arrêté dem beeg dikk bi pour safara bi bañ a wàll ci yenn oto yi wala nit ñi fa nekkoon ñetteelu ponk bi mooy service bi ñuy wax eaux et forêts bi ñu leen woowee ñëw nañu ci bërëb bi def liggéey bu mucc ayib commencé fay lakk gi sapeur pompier yi nga xamante ni fi ñu jugee woon dafa sori lool ne ëppoon na téeméeri ci kilomètre ba nga xamante ni bus bi fay nañu ko seeral ko it ba mu sedd lu jëm ci wàllu li ko waral nag ñu ngi koy bàyyi ci loxol gendarmerie nationale muy ab l'enquête ginnaaw ak ñëpp ñi nga xamante ni tey taxaw nañu taxawaayu sapeur pompier di rafetlu encore lëkkaloo bi nga xamante ni am na ci diggante gendarmerie nationale eaux et forêts ak brigade nationale des sapeurs pompiers ñetteelu ponk bi nag mooy ñu ngi woowaat suñu mbokk chauffeur si saa yu jug amee ñu yi vérifier bu baax bàyyi xel sécurité bi lu jëm ci wàllu marchandise yi nga xamante ni tey bu safara amee mën na yokk xar mi karaw wala moom ci boppam mën na waral safara tamit nañu ko bàyyi ñetteelu ponk bi mooy ñu ngi leen di ñaan li nga xamante ni moom mooy extincteur muy jumtuwaay bu nga xamante ni bu safara commencé am mën na ko fay laata muy juyux musiba bu mel nii ñu ngi leen di ñaan yéen ñiy tegu ci kaw tali bi ngeen gànnaayoo ko jërë ngeen jëf ci xibaar yi mbokk téléspectateur yu global télévision ba tey ñu desandi ci bopp xibaar yi ñu jàll ci beneen euh, xibaar euh, ginnaaw nag bis ba tàkk ca guddir yi maa ngi leen ko doon wax ci bopp xibaar yi euh, batalo Joola fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre ci la gaal gi suuxoon waaye nag événement boobu nekkoon événement bu metti ànd ak tiis ndax ku ne ci Sénégal am na ca mbokk mbaa nga am ca xarit tey nag ñu amaloon jaskatu ak euh, jàkkaarloog taskatu xibaar yi démb ci àllarba ji ngir rek daal di fàttaliwu bi lee métit waaye taxaw tamit euh, temm ngir nag daal di wax li nga xamante ne moom mooy ay diggéey yu nguur bu Sénégal diggéew ñoom te defu ko euh, film le nag fi ñu toll tembe lii ñi nga xamante ne ñoom ñooy famille ñi bokk ci la joola bëgg mooy daal di yoon daal di leen di jox euh, dëgg waaye tamit euh, nguur bi nga xamante ne mooy nguur bu yees bi daal di leen di gestu ñu teewlu leen ci micro am Gano Serigne Niang histoire batolo Joola ak ay dossier yu laaleeg moom mi ngi woy ba léegi ndax comité abu gàlloog tabax mémorial la Joola amaloon na ab conférence de presse ngir waxtaanee li ñu mel ndax ñoom jàpp nañ ne état bu Sénégal dafa waroo ak lu mu diggee woon. mënuñoo toog

li ñuy wax naan yeneen émotion lay mais aussi xaalis bi nga xamante ni pour ñu génne bato bi te loo warul. naufrage batalo Joola nekk catastrophe maritime bu gën a mag daal di faat ci lu jege ñeenti téeméeri doomu aadama ñu ci mucc buñ ko xayma ñu ngi toll ci juróom benn fukk ak ñeenti doomu aadama. ba tax na comité initiative ngir érection mémorial Joola daal di jàpp ne gouvernement bu bon ak doxalin bu amoo ñu ko bato bi mun nañu wax ne gannaaw dogalu yàlla boo gisee mu suux mooy càggante nguur gi fi nekkoon ak ñàkk yar mooy manque de discipline bi nga xam ne nemeeku nañ ko ci suñu réew jàpp nañ ne moo waral jéeye bi nga xam ne dal dalal na suñu réew ci at yële ñu génn di suuxu bato lu Joola. catastrophe maritime civile. famille victime yi yàgg nañoo réclamé ab justice waaye nag am nañu yaakaar ci nguur bu bees bi nga xam ne jot na andi ay coppite ci boobu le fànn ne dinañ ko am ngir ak kàddu jub jubal jubbanti daal di wéy di nekk seen yaakaar. ñu wax ci wàllum euh, finance ku ne xam ne nag finance euh, islamique dafa nekk di màgg fii ci euh, Sénégal looloo waral nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy capit groupe ginnaaw ab rencontre bu ñu duppee firi finance ñu jëloon li nga xamante ne nag moom mooy finance islamique def ko boole ko ci li gën a fës ci seen waxtaan te mu ren bi sax li mu wundu mooy comprendre la finance islamique maanaam xam li nga xamante ne nag moom mooy. finance islamique bilee nag eh, xew-xew te daal dinay dajale ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllum finance eh, naam waaye nag ñoo xamante ne nag ñu seen eh, xam-xam màcc la ngir ñu daal di waxtaanee li nga xamante ne moom moo wundu bilee forme financement ngir rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy néew ju doole ji Sophie Kuli Meng mi nga xamante ne moom mooy Kulibali Meng mi nga xamante ne moom mooy directrice Capitaux Group ñu teewlu ko ci micro Khady Euh, islamique muy li nga xamante dañ ko tëral ngir di jàppale di ci projet yi ak di ñu koy waxee financé ñi nga xamante ne dañoo soxla ndimbali pour seeni investissement ak seeni activité euh, loolu euh, ci anam bu dëppoo ak charia donc loolu lañu mën a tënkee finance islamique finance islamique dafa yaatu mën nañ ci am ay banque mën nañ ci am ay assureur mën nañ ci am ay euh, microfinance comme ni koy waxee mën nañ ci am également euh, bourse même ci biir bourse sax finance islamique mën nañ ko fa def ci kaw ñuy bañ a euh, laajte ay intérêt ci kaw ñuy bañ a spéculer maanaam di jëndee juróom jaayee ñeent fukk ci kaw ñuy bañ a di def li nga xamante ne l'islam nangu ko ñuy joxe xaalis ngir financer secteur yu lislaam di daax luy mel ni alcool luy mel ni drogue ak yu mel noonu jërëjëf uh, Khady Fall ci uh, leeral bi ñu jàll nag ci xibaaru tàggat yaram uh, après nag benn place boo xamante ne Sénégal daal dina koy perdre perdraat na ñaari place ndax juillet bi ñu génn ci la perdroon benn place bi yoon nag ñaar la ci classement FIFA FIFA bi nga xamante ne nag tey jii ci alxamis yem ak fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre ci lañ ko daal di publier. Euh, gaynde ya nekk ca Teranga daal nañuy nag euh, taxaw am lu tolloog euh, vingt vingt ci place maanaam nag vingt unième place ca lañ toll ci Afrique nag wërngal këpp Sénégal ñaar deuxième la jël ci ginnaaw nag ki nga xamante ne moom mooy Maroc nekk quatorzième au niveau mondial Égypte mooy troisième ci kanamu Côte d'Ivoire mi nga xamante ne moom mooy champion Afrique wërngal këpp ndax moo mujjee gagné Coupe d'Afrique de Nations ñu jàll ci tournoi UEFA AU20 Sénégal ak Gambie ñoo doon jàmmarloo ah, jàkkaarloo tey jii euh, ñu gis ne nag senegal daal dinay qualifié ci demi-finale yi ndax équipe nationale bu Sénégal moins de vingt ans euh, tey jii jàkkaarloo mu doon jàkkaarloog euh, euh, Gambie ci deuxième journée tournoi UEFA fële nga xamante ne nag moom mooy ca Libéria tey jii ginnaaw ba mu dóoree Mali. Sénégal tey jàkkaarloog Gambie 2 deux mu daal di qualifié nag ndax Maroc la waroon taseel ci troisième match am waaye Maroc moomu nga xamante ne moom la waroon taseel. Euh, dañ ko forfait euh, kon nag jaaraama suñuy gaynde di leen di ñaanal bon chance mbokk yi lii moo nekkoon xibaaru marax bi ñu leen di jëfal bu baax a baax ci teewlu bi euh, di jaajëfal équipe technique bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp ci liggéey ba mu yemb di rédaction bu global télévision ñu leen di jox di rajo 20 bu jotee Houreye Fall Diouf dina fi tew ngir dégtal leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan ñu leen di ñaanal fanaanug jàmm jërë ngeen jëf.